jaar maa ngi lay suma jarwaat bi ma fekk ci ci plateau bi di rafetlu kàddu yi nga xam ne jot naa dégg mu mu yëkkati ko fii mm-hmm. di di di comme ni Sénégal yëpp rek mm-hmm. di ñaawlu li nga xam ni moo am mm-hmm. man hôpital laa jóge nii avant ma ñëw fii Euh, di euh, leen indil samay solidarité diñ ko da nga seeti woon soxna soxna Maymuna noo jotuma ko gis nag lan lañ la fa jox ndax euh, jox wax nañ ma ne woy juróom la ñu may mu di ko gis ok mais ñi nga xam ne ñoom laa fa jot a gis ñu di ñu nekk ci hôpital bi xamal nañ ma ni daal mu ngi ànd ak dal mu ngi ànd ak tan hors de danger loolu jot nañ ma ko fa xamal donc loolu muy lu ñuy sant mhm. loolu nag ma def ko ci sama turu bopp d'abord parce que Maymuna Euh, ñi ma xam xam nañ ni sama diggante moom depuis 2009 2010 ba tey tàggoowuñu di ko def également ci turu sama doom ji ma yóbbante ndax moom it nekk ci tudd na euh, jagade muy corombaar Ndiaye di rakkam di consœur mm-hmm. moom it mu yóbbante ma ay kaddu mm-hmm. euh, massawu ci moom donc vraiment ñuy naqarlu li am mm-hmm. di leen indil solidarité yéen ñi nga xam yéen doon liggéey moo ak njabootam yëpp di wax ne lii moom defe naa ne ñaawteef mënu ko ëpp ndax Maymuna dafa nekk ci liggéeyam. di def liggéeyam. nit mën na ci ànd ak moom nit mën na ci bañ a ànd ak moom mais loolu defe naa ne mooy àddina loolu mooy démocratie. Mm-hmm. benn xam-xam bu mag doon wax ni d'accorduma ak yow. Mm-hmm. waaye bis bu yàlla sàkk damay xeex pour nga mën a wax yow li nga bëgg wax wane ni d'accordu ak man. bien parce que boo bëggee avancer. kii d'accord lu yow di la wan ni d'accord mu ndax lii ak lii kooku nga war a gën a déglu ndax nga mun a avancer. Mm-hmm. te may mun a day dalal comme ni nga def nii da ngay dalal ay gan ñuy wax. kon ku am fit. am te booy dal ci kaw bul dal ci yow bi nga xam ne da ngaa invité. mais man mi ñu invité ba ñëw wax sama xalaat sama xalaat boobu neexul xëy na ci sama kaw lañu war a dal. même bu ñuy dal sa kaw c'est par des idées. oui mais par non loolu moo war a am. mais dama ne nit ki bu demee bay def ñaafteef war na am mooy jom. am fulla am fit. mais doo fekk xale bu jigéen. bu tuuti yorul défense yorul dara liggéey bay ñibbi. nga dem de dal ci kawam dama ne booy dal da nga waroon seet ñamu invité nga dem dal ci kaw ñooña. waaye doo dal ci kaw xale bu tuuti boo nga xam ni jigéen la en plus c'est-à-dire que loolu gi day gën a ñaawal mbir mi. d'accord warul amee fenn kenn waru ko def mais rawatina. Mhm. ñu dal ci kaw jigéen. c'est de la lâcheté jigéen goo nga xam yorul benn défense loolu laa ne dafa gën a ñaaw. Mhm. mais ku amoon fulla ak fayda booy dal da ngay dal ci kaw ñi nga xam ne ñoom la invité. donc ñi ngi leen di ñi ngi leen di masaw di ko ñaanal yàlla te xam naa ni man xam naa may mun a lii delloowu ko ginnaaw. oui c'est sûr ki ko def ak ñi ko def. Mhm. mais nag police sénégalaise li war nañ lépp lu ñu mën. ba ki ko defu la ñi ko def ñu teg leen loxo. vraiment teg leen ah daal yoo def li monsieur le ministre wax